lima gëna naxar a ci mbir mi lenn la ay ponkali kilifa dem ci sedd village man dima ma dima jëw ku la fi jëw daana refane ya bokkut écho ya ko def ñu wax ko ya ko def ndekete li ñuy wax lepp bo indi ambolo bi ndekete chef de village moom dang koy compal rek ma tay ah ya tay ngay wax mos mako jox dara de moom mosuma jox tous du tous si pléa la si pléa la sama ba sama bàyyi ko dénk sedd village paré gañu ki mo warono a waye waaye de mëntu ko nek ci pal du dara et eh, ñenn ñi doona naa sàcc ñoom de di jël ay 15000 ay 20000 sacc ci ñii sàcc ci ñee da di jël waaye moom maa ko li jaay. waaw waaw ba mu jàpp lan. te sax sa woon di laa ruus.